ay audio whatsapp réplique bi nga xam ne moom la ñu gis euh, Awa Baba def ko mm-hmm. moom Awa Baba ci audio yooyu mi ngi génn di tontu sala sala di ko xamal ni que ñi nga xam ne ñoom ñooy génn di wax ci man naan man maa tey o oh, influenceur yooyu man maa tey ba jaar fu ñaaw ba di ba di ko xamal ni que ñooñu duñ def lu dul chaque jours di nekk ci man mais du man mm-hmm. du man du ñoom. di wax ni que dama nekk ci sijaara julli ba pare yore jàpp di waat ci samay doom que ni ñooñu fa ñëw yëpp li ñu wax li ñu wax ni yëpp. Mhm. ni man maa ko def amul dara loo xamante ne man maa ko fa def. Mhm. man maa euh, prévoir oon oo ñenn ñi ñu ñëw euh, pour pour pour ma def sama anniversaire. Mhm. benn xar kese laa jëndoon te ki nga xam ne moom mooy laay la seef bi ma ko doon gis c'était xaw ma première ou la deuxième fois deux deux fois rek ma di ko gis te après. bi bi ma paree aussi bi anniversaire bi jàll yow salo Sow bi mu amee trois xaw ma trois jours def na ko yooyu yaay la seule personne boo xam ne yaa di ma wax ci anniversaire bi bi ma paree may wooyee di di xale fii naan leen dindi leen lii dindi leen lii ci loo mhm. xamante ne dañ ko oote woon te affaire gi bi mu amee aussi xamuma ci woon dara mu doon quand ay audio yoo xamante ne moom la ñu dégg après bi coow amee bi bi bi bi bi bi Sala Sow dalee ci kaw euh, ki nga xam ne moom mooy Awa Baba ba génnee ay ojo ñu gis ne ay audio après dafa fuité comme quoi que euh, Awa Baba dafa répliqué. te bi Salasou génnee ci mbirum xew bii la waxaale li ci métti ba raaxaale ci li nga xam ne moom mooy anniversaire wu Awa Baba bi ak la ca xewoon. léegi nag li problème bi mooy comment comme les gens comment ils ont fait ba am audio yi nga xam ne audio la boo xam ne da doon wax ci waxu anniversaire ba ci waxu anniversaire ay audio WhatsApp la. mu génnaat ci période bi nga xam ne moom la ñu nekk nii ci ci période xewu Alioune Seck beeg Khadija Tall bi nga xam ne dafa jàll indiwaat uju Awa baaba pour diir que ni dafa dafa dafa tontu ki nga xam ne moom mooy Awa Baba loole la question question boobe la nit ñi di laaj audio yooyu nga xam ne dafa dem ci diggante Awa Baba ak euh, ki nga xam ne moom mooy Sala Sow fan la audio yi mën a jë jë mën a jóge aussi ba fuité ñëwaat aussi ci problème bii nga xam ne moom la ñuy tudd depuis boobu ba tey abi mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> loole ay leeral la rek. loolu voilà muy kat muy quand même muy mhm. mhm. ko. ba pare xam nga xam nga lan la sa technologie moo avancé. Mhm. gis nga mën nga ne du ma invité benn benn journaliste benn influenceur du fa nekk. mais yéen si seen biir. nit ñi dañ fay nekk yow seen téléphone di snap mais mais même bu dul loolu sax même bu dul loolu euh, mooy li ma la wax rek question bi nit ñi di posé ba tey mooy. pour pourquoi ci jamono jii ñu ne jamono goo xamante ni audio nit ki mu ngi ci xew maanaam audio wu Sala bi muy génn c'était par exemple pour ñëw ci li ko naqari ci xew bi mhm. ba laaxaale ci mbiru anniversaire bi mhm. mais gars dañoo génn titre ay audio fuité comme quoi comme quoi aw baaba dafa génn tontu ki nga xam ne moom mooy Sala te ah, alors que ni tontu ko audio yi ba tey mhm. euh, Sala aw baaba dégguñ ko ba tey mu wax ci audio yi di tontu Sala ci mbiru xew beeg yooyu mais ci la lam doon wax rek mooy mbiru anniversaire bi nga xam ne ci la Sala génnee di naqarlu que ni anniversaire bi dañ ko waroon def ci discrétion parce que moom defoon na fi anniversaire Kéba Seck ñëwoon na fa mais moom personnellement moo génn wax ña nga xam ne ñoo fa nekkoon ne leen am fula bu toll leen vidéo bu mu fi génn parce que man bëgguma quand même sama vie ñu koy ñu koy exposé ci li nga xam mais mhm. même bu fekkee sax loolu amoon na te mu xewoon seen diggante ñoom ñaar mu jàll mhm. est-ce que les gens ils ont besoin de savoir xewoon seen diggante ba ay audio di fuité loolooy question bi ñëpp di laaj benn ñaar euh, sànq da nga ne sala nee na bëggul ko exposé vie privée mhm. bien vrai que turam fës na mais moom bëggul fës comme bëggul fës démb yaa ngi koy wax ci ojo bi mu ngi naan euh, ki muy yónnee audio xam naa ne audio bi dinaa ko déggaat feneen. mais ba nga demee ba di ko sóoraale nga ko waroon bañ a def soo bañee fës. dëgg la yëkkati sa téléphone nga wax ak nit ki li ngay wax ak moom nga coupé. Mhm. soo bañee fës. dëgg la mais moom bu dee dëgg rek a neex yàlla moo siwal boppam moo fësal boppam. dëgg la. Mhm. muy lu doy waar maam xalifa nga xam ne moom la ñu nemmeeku bi ñuy wax ni que aw baaba dafa dafa dafa répliquer dafa génn tontu ñu bëggoon cee indi rek ay. leeral par rapport ak di xew parce que. bu ay mbir li li wax léegi tamit contexte bi mu amee yow nit ki nu mu nekkee ci xew di maye doomam. nga ñu génnee wax jooju. voilà dafa mel ni luy xajamal xew jàmbur te boo ñëwee ci commentaire bi ba tey te boo ñëwee ci commentaire bi ñun on on rien contre Salah mhm. man Salah je ne la connais pas lu dul ay vidéo yu ma gis après mu génn ci xew Aïda Samb loolu démb sax laay soog xam ne moom demoon na. Mhm. voilà ak jëkkëram bi ñuy dégg souvent naan Sala Sow série Ilimane Lam damay dégg Kewa Seck di ko woy damay dégg mhm. aussi ñu bari di ko woy ku tudd Ilimane da ngay tudd Sala. Mhm. ku tudd Sala da ngay tudd man xaw ma ko je ne la connais ni près. ni de loin ni xamuma ko mais booy seetlu ci li nga xam ne moom mooy commentaire li ñuy wax rek mooy tout le temps. dañuy appuyer aw baaba comme pour dire que ne sénégalais. tey man ak maam xalifa encore une fois ma waxaat ko su ñu jote woon tey man ak maam xalifa muy lu waroon jëm sama diggante ak moom su ma demee yóbbu ko ci pénc ma tey man la ñuy sikk c'est-à-dire sénégalais yi dañu dañu dañu yeewu ci loolu bëgg nañ di topp kaa mais bëgguñu quand même koo xamante ne day niiwul nit doole surtout ci koo xamante ne tey may na doomam bu yàggul dara. ku ne xam ne xew def nga bàyyi ba bésu mbégteem passé di ngay amee ay jafe-jafe ku ci nekk di génn aussi ñu nemmeeku tey bu problème amee tey biir Sénégal tey da ngay gis kenn ku ci nekk tey da am koo xam ne moo lay geeral. Mhm. nga génne secret yi wax ko kee kee génn xeexal kii mu doon ay problème yoo xamante mhm. daal ñu ngi koy nemmeeku Sénégal te mu te muy loo xamante ne vraiment lu lu lu ñëpp ñaawul la daal. ba pare anniversaire mën nga ko def entre les quatre murs sax maam Khalifa ñëw ndokkale la. Mm-hmm. Moussa ñëw ndokkale la. donc loolu jarul di ŋàññi nit. c'est pas parce que yow la xam yow la invité keneen waru seerax loolu daal la ñu indi woon tey ci li nga xam ne mooy actu people bi on espère bien que neexoon na sénégalais bu baax a baax di leen di leen di leen di voilà di leen di leen jox rendez bu rek maam dému toj nga dëkk bi maam bu suba amee dix mille nga dix mille commentaires non non non non démb maam xam nga rek confiance moom dafa dafa xaw a grand tey quand même jiital ngeen ñu te fakkasaloo la ñu aussi di ñu épaulé bu baax a baax ci ci ci liggéey bi. donc lu ñu war rek avant ñu ñu table bi aussi. Mm-hmm. ñu jéem fexe ba lépp lu ñuy wax rek mu doon quand même loo xamante ne. lu la vraiment. fii ku fi wax ku nekk. voilà da d'accord parce que mm-hmm. parce que coow li bëri na aussi kenn ku ci nekk ñu ngi wax mais ñun aussi dañuy bëgg di saytu mbir mi. voilà